jërë ngeen def seen ànd ak seen seen YouTube tas info kii di ah, Zarko gannaaw victoire bi nga xamante ne amoon na ko eh, ci jamono yi passé ci kaw kii di Ada Fass Zarko mujjee na def li nga xamante ne moo di takk soxna eh, ci ci le 18 bi weesu <clears throat> ci ba nga xamante ne mbooloo mun takku teewoon nañ fa waaye visite surprise bi nga xamante ne moo ci am aussi muy visite du ki nga xam ne moo di site lutteur mi nga xamante ni moom débarqué na fa ci super surprise ci ki nga xamante ni moo di Gris Zarco naka noonu leneen loo xamante ni surprise la ci ñoom aussi mooy gato anniversaire bi nga xamante ni indi na ko kii di soxna si kii di Zarco en direct gannaaw ba nga xamante ni ma nga doon célébré li nga xamante ni di mariage